That was his mbokk internet yi nuyu leen bu baax a baax am contentement jën ak yéen tey nag maa ngi fii parcelle yaakaar naa ba ñu woote si des démb face to face su feen ndaje Ada Fass woon na lool waaye su feen ndaje mujjee am leneen ah kaa bi ëpp ñu doole yaakaar nañ ñi war koo topp commencement à fin ni olof jaay naan tunga du teew ñu nataal lépp lu fa am ak lan moo tax coow lu jóg ki nga xamante ni mooy Anaconda ñu nuyu ko bu baax a baax bu nuyoo internet ñu laaj ko coow lu lan la woon Anaconda lan la coow li ci Anaconda lan la champion bi nuyu naa la Anaconda góor la wala Baye Fall la. Baye Fall la <laughs> auzu billaahi bismillaahi ni woon yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf si Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul gannaaw bañ sant yàlla julli si yoon bi sant suñu ñaari waajur di nuyu waa parcelle ba bés yi ñëpp maa nuyu di bëgg suñu père Birame Ndiaye di bëgg waa ak loolu làmb ñëpp di ñaan Sénégal jàmm yàgg di la nuyu Mbacke. bëgg na bu baax a baax Anaconda si lan nga ne. man maa nii dal jàmm rek. dal jàmm ci lan nga nekk ci wàllum làmb ci lan nga ne ba nga bëree ba ngi si entraînement di déglu gars yi rek gars yi ñoo parewul rek pour bëre man mais maa ngi samay entraînement chaque jour. mbër bu ndaw la mbër bu ndaw moom chaque jour nga siy nekk mooy loolu balaa ma ñëw ci adversaire ya ak euh, gars yi daw bi dañuy ñëw teg jémba ngi dem ci ses waa jàmba production woote yaakaar naa ne gis dafa sa présente nekkul woon guléet mais mu am coow lu fa lu ndaw lu fa am lan la lan mu nekkoon problème bi. ah problème bi ngay Arafas ak Zos la ñoom ñoo am combat ñoo am problème. mais yaa Arafas yéen a jote. non non jotoo ma kenn. Anaconda coow li bari na suñu ginnaaw nga nekkoon Arafas am na lu wax ba sànni leen kàddu ngeen delloo wax kàddu bi lan la yéen ñaar bataille psychologique la bataille psychologique la wala coowlu milieu la lan la. ah est-ce que nekkul ñu nekk sama ginnaaw waxal kon. Anaconda Arafas jógee dafa ne ngeen jotee yéen ñaar lan ngeen jotee foofu. waaw Aara dafa doon romb rek dayoo ak ñun noonu rek mooy loolu. sama xel bi ngay fooyee wala. non fooyee ma sa xel li laa lay wax rek. raag bi lan la raag du yàgg Arafas. Ah, gaa la woon seen biir rek man moom raaguma de Arafas moo doon raag mais man raaguma. Arafas anaconda doon raag bañ dig ne Arafas jam na anaconda. am ah. na wala waaw. <laughs> Arafas laa ma ne moom moo doon xeex man xeexu ma ko da nga ne ko mu dóor la wala lu problème nu fa demee. nu ah. fa demee. wallaahi man loolu kay moom laa bëgg ngeen laaj ko lan la ko waaw. man yow lañ koy laaj. man pour man moom Arafas jaroo mag moom dara ko waaw. gis bu anaconda bul sama émission bi. jotewoo dara Arafa soo ko waxee dafa mel ni man mii ngay ñaawal wala internet yi nga xam ne ñuy ñuy laaj Arafa da la war a jote Anaconda bay xeex ak moom lan la du xew moo tax moo loolu moom si contrat la nekk moom Zos ñoo am combat waaw actualité bi instant yi moom Zos la mais saanante ngeen actualité bi nekkatul bi moom Zos yi Arafa ak Anaconda la fu mu ne nii nañ ko wax te dee incha allah bàyyi loolu wala neuf incha allah ñu wax si loolu kon da ngeen am ay compte yu yoon am ñaar wala non non maa ngi déglu ay règlement de compte ay yooyu ay Parcelles Fass non non Parcelles Fass moom jotewuñ dara man Fass nii nii ma ci kanam mun naa fa dem dama fay dem naa dama fa amay nit samay nit lañ Parcelles ak Fass jotewuñ dara waaw pour da wax lool yi waaw ñuy wax loolu noonu Parcelles ak Fass jotewuñ dara mooy loolu waaw démb li am foofu yooyu noonu yëpp ba mu jeexee lañ tourné man moom lu passé passé na ko waaw nekk sama kanam laa xool waaw. danaa jàpp wala jàpp am na ñu naan ah, Anaconda dañ koo jàpp. fan lañ ma jàpp. ñoo kan lañ koy laaj ñun xamuñu. Ah. <laughs> doomu séeréer laa de. Arfas déggante ngeen. Arfas non non dégg nañu Arfas dafa nekk contrat quoi. non déggante ngeen lii la conseil ndax déggante ngeen. non déggante wuñ. problème bi amee gars yi demoon na seen kër. non demoo fenn man ma. kenn attaqué wul kenn. bi du histoire làmb kese yàgg na affaire milieu la ci soirée Ibro Ndiaye la commencé affaire yooyu noonu est que loolu am na. waaw mais ñoom ñu dee ak si milieu bi xanaa lay coowal man Alpha du ma dee ak moom fenn Alpha moo ko lu mu wax dafa am lu mu wax lu la vexé wala parce que mu ngi naan damaa jël samay morom da nga see gis sa bopp wala. non làmb du benn jour du benn at du ñaari su ma si gisoon sama bopp lu koy fajee mooy dem entraîné ci ñoom ku si jeex ku si wax na ngaa jeexal say morom wala genre dañ la tëbal si làmb bu dee jeexal morom man maa jeexal samay morom. waaw mais suñu ñoom ñoo leen di may saas mais ñoom seen i garaan duñu may saas mukk Ada Fass nekk xale dugub bi parcelle instant bi fekkoon ci âge la ñuy wax instant bi yow la waroon bëreel muy bëreeg Zoss yaakaar naa ne pression bi ci yéen la war a ëppee sa morom di bëri ki nga xam ne mooy sa grand tey jii sa taxawaay la la waroon nekk ci jour boobu. loolu moom wërsëgam la comme ñoom seen grand du ñu may saas mais suñuy grand ñoo leen di may saas mais foofu suñuy grand yi la ñuy waxal rek ñu leen di may saas ñoom ñu ñu xel ñun waaw parce que du moo ñoo moom ñun ak moom la woon. mais yàlla moo ko dogalee noonu ñoom tam grand nañu bàyyi xel koo bàyyi xel bi nag mooy ñu dem teg der yàlla moo yor ndam mais nañ teg der bàyyi ñu xel jaayante waaw jaayante bu baax après lu yàlla def ñu xam ne loolu la mais nañ ñu bàyyi xel quoi bañ a oyofal làmb ji loolu rek laa wax suñu grand fii waaw. Anaconda ci combat mu nekk nii foo ci làmb. man maa ngi entraîné di xaar gars yi ñu ngi dox samay combat nag mais mu ngi yàq suñu mbër bari na du ma wax tur benn mbër fii war na si. man fii foofu ay wéyu bay ci booy ñu ngi naan euh, ñi naan Mor Kankang lañ bëgg ñi naan Kaaw Gourdin lañ bëgg yow Ndeye Mbilik koo bëgg. ki ma bëgg mooy ki pare pour bëre ak man rek. pourquoi nga naqaree amal adversaire Anaconda lan la. man loolu ma jaaxal dafa toll ma ni mbëri mbëri yëpp moo ëpp ñoom sut. sut bi. <laughs> waxal li def kaa nii kay wóor na Serigne Touba wax xamee wax ma ko. ci kan la yàqoo. man combat mosul man ba léegi combat ak Mor Kankan ci lu mu yàqu. man làmb. mais da ngay wax kan nga bëgg parce que li ñu naan bët yenn waaye xam na li bopp attan. Ah, mais man père xam nga rek sama kilifa la te ma bu ma toog si fenn benn média di tëkku benn mbër wala kii te xam sama kilifa mënu ma ma def lee dama koy may loolu quoi moo tax du ma fi tudd benn turu mbër waaw. jaadu na bëgg nga pare naa pour bëri ñooñu parce que ay champion lañu jàmbaar Anaconda nekk doomu parcelle yaakaar naa parcelle champion yu bari dañ fiy jógee ba tax na dañuy naan sax mbëri ndaw yi champion yi ci kaw ñoo leen di muur terewul yéen a ngi wane seen bopp ak champion yi ci parcelle la. suñ dundin parcelle champion yi mooy jox leen lu ñu moom rek ñu delloo ñu ko mooy ñoom ñun mënuñoo am lu leen ëpp quoi parce que ñoom def si làmb ñun defuñu ko te néeg bu lëndam ko la jiir moo la woy yoon bi ñun mënuñu déglu seen conseil fu ñu jaarloo ñu jaar fa kese jox leen lu moom rek ñu delloo leen ko kese dund bi moom rafet na naas di bëggee waale ko si mel ni Modou Lo Papa Sow Goro Sock ak ñëpp ku lim juum waaw mbëru parcelles yëpp maa leen di bëggee bu baax baax ñu si am combat leen ñaanal yàlla may leen ndam ñu ko si amul yàlla leen yàlla defar combat mais entente bu rafet la ñuy dund daal waaw. balaa ma tey sama deux minutes yi fa ma saxanal ko ndax liñ jaay bi ñu wax ñu ne Anaconda Arfas da ko jaay ji koy bànn da koo dóor nangu xaalisam nangu téléphone nangu ay bagage am liñ jaay ko liñ jaay ko total na. Arfas lépp la ma def. <laughs> sama wax ji di. Ada Fass lépp loo xalaat rek ak ak li ñu la waxul ak lépp def na ma ko. sama wax ji Ada Fass nag jàpp ci waaye rek même lu ma wax nag jàpp ci rek nag. <laughs> mais saa ci tam ak géwél yomb na mais tënk si moo jafe. <laughs> jël nañ ko wala jëriñu ko. ah dégg nga mooy xam luñ ma deful. kii toog sax du ànd kontaan ñoom maa ngi Fass dañ ma linjaani. <laughs> loolu kat laa dégg ànd kontaan. loolu waaw def nañ ma lépp foofu loo xalaat def nañ ma linjaan nañ ma def lépp. nice sëriñ Tuubaa internet yi lii mënu ma si dara kooku borom nday mbi liggéey ba moo bañ di wax mënu ma si dara <laughs> Anaconda Gora Sock muy bëri suba la première mi doom parcelle war a ubbi làmb ci lan nga koy wax. Gora Sock waaw di wax waa parcelle Cambérène nañ génn dooleel ko rek waaw parce que mbër amul lu dul public ah ren làmb nga ñëw tey yow maanaam tey exemple ñëw pour bëri si quoi teg am na ñooy gis rek da nga ne tey moo daan damay dee maanaam public dafa bokk si làmb saa day motiver mbër waaw naka waa parcelle grand ñëpp nañ ñëw doole ko quoi di ko ñaanal yàlla suñu borom waaw ah, subhaanahu wa taala bi rabi arsi may ko ndambaay bu kawe njortam grand bu baax la war na Serigne Touba champion la waaw mu ngi rey boppam li si des nag muy ndam yàlla ko yor waaw yàlla na ko yàlla defal ndam incha allah. waaw damay and damay wan waa Sénégal bi ne combat ma jógee ma juumoon rek mais fii ma nekk di sama place. am téléphone kan. téléphone. mu ngi si laa. <laughs> Ah, mu ngi ci euh, mu sama alal góor du ko laal. laa. <laughs> ayca leer na comme wax ko nee du affaire millier parcelle. du ma millier man Baye Fall laa Baye Darou. waaw ah, man sama empreinte si Baye Fall laa ko marqué quoi. des fois gars yi naan Anaconda góor la Anaconda lu mu mënta la zaayaaroo baati nan wax. waaw ah, léeg-léeg mais ñun ci baatuñ ba lañ gën a tënku parce que moo ñuy fànqal suñu digganteeg maanaam suñu digganteeg sëriñ bi amul yemuwaay làmb daa am fu mu yem moom digganteeg sëriñ bi amul yemuwaay moo ñuy dimbale maanaam baatuñ bi moo ñuy dimbale si zaar ah, si moo tax ñun foofu lañ gën a tënku sax mooy si waaw sëriñ bi ay ci kontaan naa ci moom baax a baax Anaconda lan ngay wax say supporter balaa ngay tàgg waaw di leen mooy loolu nañ xaar rek yàlla baax na xaar bi yàgg na mais yàlla baax na maa si lu ma war maay ngi sama entraînement waaw wax mbëri nañ ma jël ak ñu bëree parce que sama la ñuy xaar si man waaw di leen wax nag làmb yi stagé lépp du si man si adversaire yi la. looy tàggatoo. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Amadou Bamba xaaral sol. ayca bëgg naa si yow. fii la waree la. ayca Kalidou <laughs> xam nga man waxkat laa la ma bëgg di wax mais Anaconda dafa ni daf ma xaar ma ñëw mu tënkal ma wax jëpp tegal ma ko ne ma man doom ma dugal waaye garaawul may naa ko loolu billaay may naa loolu li ngay def nii yëpp xam naa ko noo gis naa li nga def waaye garaawul nee na ma Arafat kii bi waaw ni ngeen fi toog lu yàgg neeg yooyu noon sax maa di tuubaale waaw di baax coow lamb yëpp jël leen tuubal li xam ne journaliste yi ñun muy mbëreeg ñun ne mun ñu leen jaay dara parce que bu dul ñoom ñun kenn duñu xam waaw ñoom dañuy jàpp suñu carrière ñun mbëri yi dinañ di wax ñun mbëri yëpp nañ leen koy yombalal rek war a Serigne Touba di leen jégalu si lépp waaw man moom mooy loolu Baye Fall laa daal Aïcha bëggee ko bu baax a moom Anaconda yaakaar naa utal ko combat xaw naa jafe ba tax na combat bi ngi ñu ngi koy wax diggante Mor Kang Kang Anaconda la waaye Kaw Gourdin a ki nga xamante ne mooy Anaconda combat la Kaw Gourdin meilleur boy sens nga bëre ak ñoom yaakaar naa ne champion rombul Anaconda instant moom ku ko jëlul rek da nga koo bañ ma bëgg ci moom waaye coowal làmb la bi jël na ko may nañ ko ko bëgg ci moom am contentement bu baax a baax bëgg ci ñi ma fekk ah, leen nuyu waaye xanaa su damay jum kontaan ci ñëpp baax a baax Karidou jaajëf beneen yoon incha ak seen Lamb TV.